mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci xibaaru guddi gi xibaar yi tey jilee bokk na ci eh, li nga xam ne moom moo ci gën a fës daanaka benn ponk la sax muy mawlid gi gàmmu eh, bés bi ñuy màggal gane sib àdduna gën di mbindee Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam eh, fële ca Tiwaawan moom xalif général ba di Serigne Babacar Sy Mansour moom mi nga xam ne it ni mu ko defee daaw la ko defee ren daanaka dajaloo amul foofule terewul nag yëkkati na ay kàddu jagleel ko ñii di taalibe yi ci cérémonie officielle bi ñu doon amal sànq ci teewaayu ministre de l'intérieur di Antoine Félix Abdoulaye Diome moom Serigne Babacar Sy Mansour ci discours am boobule ñaawlu na bu baax a baax élèves yeeg seenub niveau bu faible ak programme yi ñuy nemmeeku ci réew mi te méngoo méngoowul benn yoon ak li xale yi soxla moom nee na it école alxuraan yi nekk fii ci réew mi rawatina daara yi dañ leen war a gën di jàppale Euh, seen i euh, sëriñ euh, naka noonu moom xalif bi it wax na xeex mbëkk mi ci réew mi xam ngeen ni fan yi dafa gën a jéggi dayu ne njiitu réew mi ak ñëpp ñu mu àndal faw ñu taxawal ay pexe ngir fexe ba ndaw ñi ku ca nekk mën a am xëy bañ a xalaat di dugg ci gaal yi di dem biti réew yeneen ponk it yu bëri yu mu junj bokk na ci wàllum fitna gi ay nit ñu ñuy faat ñaari fii ci réew mi mu ëpp mi moom it wax na moom sëriñ Babacar Sy Mansour ci élection locale yi ñu dëgmal ci atum 2022 ñu ne nag euh, na nit ñi def seen kéem kàttan ba yëf yi jàll ci yoon wàllum avortement médicalisé it bi ñuy waxtaanee fan yi yëpp moom nee na loolee warta am benn yoon ci réew mi mu di ay kàddu yu mu yëkkati du ñàkk yeneen jotaayu xibaar dinañ ci dellu si ak euh, suñu ndaw ya ñu fayabal bokk na ci Habib fay ca Tiwaawan la ñuy des ba léegi rawatina ca champ de course ba fa kii di Serigne Moustapha Sy njiite Moustarchidine wala Moustarchidaat moom nag dina amal gàmmu gi tey jëlee ci guddi moom ay taalibeem ñëwoon nañ fa ci nu takkoo takku ngir teertu ko foofu foofule ñu ne ñu ngi xaar tey jële kàddu yi mu fas yéene yëkkati foofu Cheikh Anta daanaka ci waxtu njël la taalibe yu bari dikk ci kër seen sëriñ bi di sëriñ Moustapha si jiite Moustarchidine wal Moustarchidaat yi taalibe yi doon ko xaar ngir saafonteeg moom ci la dikk yëg ci kaw yëkkati ay loxoom ñëpp bëgg ci gis bi ñu ko gis. tey nag wax dëgg yàlla am nañu mbégte baax baax contentement wax dëgg yàlla ndax euh, li yombul euh, yàlla bu la may kilifa kilifa goo xam ne ñëpp ko soxla ci jamono waaye nag mu doon jamono boo xam ne nii benn kilifa la. kon nag bu yàlla boolee ci njabootam wax dëgg yàlla dangay ngay da ngay fier lool lool lool lool rek macha allah di wax rek jaaraam Serigne Mouhamadou Moustapha sagal nañu sigil nañu yàlla na ko yàlla sagal ci barke maam Khalifa. yàlla nañu ko yàlla fayal. yàlla ñu yàlla fayal sëñ Moustapha Sy barke Seydina Muhammad amuñu ko dul moom yàlla xam na ko. xal yi nga xamante ni moom moo wër résidence bi jëm ba ci course ba daanaka foo sànni mbàtt mu takk mboolu mu bëri dikk ci gàmmug Tiwaawan gi fii ci champ de course bi ñu ci bëri nee nañ yàkkamti nañ gis seen sëriñ xaar discours bi nga xamante ni moom la leen fas yéene yuppil. ñu ngi xaar discours bi nga xamante ni moom la sang bi war a jël jox ko umma islamique bi duma wax rek tijaan yi jox ko umma islamique. ndax moom discours am nekkul lu dul yar xale yi damay wax ni fii ci champ de course bi soo bàyyoon ba guddi nga ñëw fi ñu ni am na lu ma téeméeri nit ñu nga xamante ni daanu nañu waaye benn cigarette rek. nañ leen ko indi ñoom ñëpp buñ ko fóonee ñu wér dama lay wax ne ñoom ñëpp danañ génn àdduna ndax ci course bi doo fi gis kenn ku yor cigarette ku koy jëfandikoo ngir yàlla ak liggéeyam ngir yàlla ak mbaaxam ngir yàlla ak bëgg umma bi yëpp tegu ci siraatal mustaqim kër yi nga xamante ni ñoom ñoo wër champ de course jàpp ba ci lycée bu Tivaouane ay daluwaay lañu ko def mbooloo mu bari lool taalibe yi gis ni mbooloo mi ñu gis ren mësuñu koo gis ne nañ li ko waral moom mooy gëm seen sëriñ bi jiite seen daayiri Moustarchidine wal Moustarchidaat di sëriñ Moustapha Sy ak cofeel bu ñu am ci sëriñ Babacar moom Serigne Moustapha Sy PUR di parti bi mu taxawal bokk na ci coalition boobu la ñu naan yeewi askan wi ñeneen ñu ca bokk ñu ci mel ni ay Mbodj ci Ousmane Sonko wala boog Khalifa Ababacar sàll demoon nañ ca Tiwaawoon ngir gis ko waaye ah, doomam moom moo leen ah, tertu dañ ciy déglu Babacar Diop moom moo yëkki ay kàddu ci turu waa coalition bi. dañu ñëwoon ci suuf su tedd si suuf su sell si ci gàmmu gi. ngir uh, sargal kër Seydi El Hadji Malick Sy ñu sargal aussi sëriñ Moustapha Sy bi nga xamante ni mooy responsable moral daayira muhtarshidin wal muhtarshidat mu defal ñu teraanga ju kawe eh, dalal ñu wax uh, doomam maam Cheikh ndax ci mujjantal bi dafa amoon ngànt sëriñ bi dafa am ñaari taxawaay benn bi mooy homme politique la ndax parti bi ñuy wax PUR sëriñ bi moo ko jiite ca PUR boobu mi ngi ci coalition bi di ci liggéey liggéey bu am solo ñu dem fële ca Medina Baye foofu it ñu ngay uh, màggal ba bésub Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa xalif ba di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass dalal na ab délégation bu coalition benn Bokk Yaakaar moom uh, nag kilifa gu tedd gi yëkki na ay kàddu ci uh, fitna gi ñu nemmeeku ci langum politique bi waaye mu jàpp ni Kaolack daanaka rëcc nañ ci loole kon faw ñu wëyal lu ni mel Pape Mbaye Diaw ca Kaolack. xew ngaayoo bi nga xamante ni nag nemmeeku nañ ko jamono ji ci seen politique bi te Kaolack boobu ba léegi loola amagu fi ki nga xamante nii moo di xalifu dina bàyyi di ko rafetlu Cheikh Mahi Ibrahima ñas di woo responsable politique yi fi nekk ñu wéy ci jàmm jooju ak lu man di xew. yëngatu yi bëri na Sénégal. jafe-jafe yi yëngatu na. te politique moo ko waral. waaye gis na ni yéen yéen ngi topp ligne boo xam ne. xuloo amu saagante amu si. génne nit ñi si mbedd mi ñuy gaañante amu si. li ngeen di def yëpp. yeneen koy def ak xel. yeneen koy def ak dal. yéen koy def ngir da ngeen a bëgg def ngir Sénégal. délégation Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni nag dafa demoon ci xalif bi daal di koy jébbal matuwaay yi nga xamante ni jël nañ ko ngir gàmm gi am ci jàmm di rafetlu taxawaayu xalif bi. lépp loo xam ne jëloon nañ ko engagement ci sa kanam maa ngi lay wax ne gorel nañu ci mbooleem dëkk bi ak mbooleem jaami yàlla yi nga xam ne ñoo wër dëkk bi te yaakaar ne war nañoo jëflanteeg ñoom. jëflante nañoo ak moom kemt laayal ni ñu waxoon ci sa keppaat ba nga jox ñu ci ndigal. gannaaw Medina boobu nag daal dinay jaar ci yenn famille religieuse yi ngir rek daal leen jox seen participation ci gàmmu gi. ca paalit njabootu uh, El Hadj Rawane Ngom ñoom ñu ngi ci waajtaay yi uh, tey jëlee ci guddi fas yéene nañu fa amal ay uh, jàng waaye tamit ay waxtaan jagleel ko Seydi Hadj Malick Sy ak borom bés bi di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam foofu ca diwaanu Ndar Ousseynou Diop lañ ci àndal. ni ko waxee rek noonu la euh, fii ci grande mosquée bu Paal euh, jàppal ni fii la ñuy amalee gàmmu gi nga xamante ni moom la ñu ci Paal xam nga nag Covid 19 bi boo xoolee tey ci dëkk bi da ngay gis ni nit ñi nañu daan amee euh, ni mu daan bare ren barewu ko waaye nag li ko gën a waral mooy contexte bi nga xamante ni nekk nañ ci muy Covid 19 bi Paal nag ku ko wax da ngay wax dëkku Seydi Hadji Rawane Ngom bi nga xamante ni bokkoon na ci ñu njëkk ànd ak Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ngir ñu mën a amal gàmmu gi ñi nga xamante ni nag daan nañuy ñu ay fidèles kenn ku ne yéen nga yàbbi ci wàllug mbir mi na nga ko gisee ak itam lu jëm ci wàllu gàmm gi nañ ko nar a amalee ren jile ni mu daan mel nag du ko mën a mel ndaxte li xew la kenn ku ne xam na ni jàngoro ji mi ngi fii ñu ñëpp xam na loolu di ñaan yàlla na si yàlla muccal jaamu yàlla yëpp yàlla mi ngi fi indi yàlla nga ko teggil te mu doon suñu yow ndaxte pénaliser nag côté yëpp nag côté yëpp secteur yëpp la pénaliser. ñu ngi fàggu nag maa ngi sama gel ñu ngi ñu ngi gérer ñu anam maanaam daal ñu ngi fàggu au maximum dafa fekk kay. gudd gu toll nii rek mënuñu ko mën a bañ a moo waral ñu nekk fi. kon mu ngi noonu ñoom ñi nga xamante ni ñooy fidèles yi yéen nañ ci yàbbi waaye tamit daal nañu talal suñu micro keneen muy porte parole lu bi di Serigne Bachir Ngom moom daal na ciy wax ci lu jëm ci wàllu euh, contexte bi nga xamante ni am na ko mu ñaan itam euh, ci kàddug euh, Serigne bi ngir mbas mi mën a génn ci àdduna bi waaye tamit daal nay yëkkati kàddu jëmale ko ci askan wi ngir ñu gën a veillé ci lu jëm ci wàllu kaaraange askan wi. bu ko defee bon Euh, gàmmoo ngi nii nga xam ne ñoo koy def waaye ci contexte yi ñu koy defee doy na waar mooy contexte su Covid sunu borom nag ci mbaaxam mi ngi wayafal ñoo ngi ñaan ca mbaaxam nga ci barkeb yonentam bu tedd bi Covid bi fii mu toll yàlla na fi yam képp ba jeex tàkk ci Sénégal di fàttaliwaat rek nii euh, ñaari mbir kuy gàmmu si war a nekk ci sam xel képp kuy gàmmu ku mën a doon ñaari mbir war a nekk ci sam xel. bu njëkk bi mooy sécurité alimentaire ñaareel bi mooy sécurité publique. kon lu jëm ci wàllu gàmmu gi loolu lañ ci mën a wax tey jëlee fii nga xamante ni mooy grande mosquée bu Paal euh, fii la ñuy amalee euh, gàmmu gi euh, nit ñu bare nag daañu fi teew ñu mën a jàng alxuraanu karim wax yàlla bu sell bi way itam ay way waaye tamit waxtaan ci Seydi Hadji Malick Sy waxtaan itam ci sang bu tedd bi waral bis bi tey jilee Ousseynou Diop nekkoon euh, foofu ca diwaanu euh, Paal wax na ko sànq junj nañ ko euh, mbas mi ren jile daaw bare nit mi ngi fi màggal bi gàmmu gi bi mooy ñaareelu at mu ñuy fekk ci jafe-jafe yooyu le naam sax nemmeeku nañu kaa yi dafa wàññeeku ak nit ñi ci faatu communauté la yenn tey la ñu gën a taxaw ngir wàccoo ak li waa kër docteur wax ngir gën a moytu mbas moomu moomule ñuy xamle yit ni ren jile appel bu Seydina Limaamu Laay al dinañ ko amal ci ndorteelu mars bi ñu dëgmal Daouda Mbaye lañ ciy déglu moom mooy vice président groupement central Layène yu Yoff ci micro Marcel Farba Maroun ak Diafara Ba. La communauté Layène a été toujours très constante dans ses décisions par rapport au Covid. y a une appréciation au cas. communauté Layène mësul changé ay décision am ci wàllu coronavirus bi léeg-léeg kaay yokk léeg-léeg mu wàcc te bu wàccee organiser événement dagan na état sax noonu lay doxalee. à l'organisation de cérémonie et l'état même l'état du Sénégal adapte. loolu waral communauté Layène ginnaaw bu mu gestoo situation bi gis ne mbas mi wàññeeku na bu baax jël ay responsabilité am nar a organiser ay événement jamono ja mbas bi di am doole dañ daan annuler événement yi comme appel bi comme que nag fu toll nii contexte bi maye na ko ñu leen di xamal ne appel Seydina Limamou Laye dina am déwén. nous sommes en mesure d'organiser le prochain appel de Seydina Limamou Laye jërëjëf euh, Marcel Farba Maroun ñu wax euh, ci euh, beneen ponk ci xibaar yi ginnaaw gàmmu gi ak directeur prévention mi dalal xel bu baax a baax ñi amee feebaru roño te doon fajoo ca clinique privée ba nekk ci avenue Cheikh Anta bu Ndakaaru te ñu tëj ko démb ndax ay weer a ngi nii fayuñu seenub luyaas moom docteur Mamadou Ndiaye nee na service ministère de la santé dinañ def seen kéem kattan ngir taxawu ñi amee jàngoro yooyu lee ngir bañ seenub wér-gi-yaram daal di loru moom docteur Mamadou Ndiaye la ñuy déglu ci micro woo Aminata Mbaare Sow. direction bi nga xam ne moom la ñu jagleel mooy direction lutte contre la maladie moom moo yore mbirum jaliis te moom mu ngi ciy dox ay jéego ministre de la santé aussi jox na leen ay ndigal pour que loolu ñu saafara ko nu mu gën a gaawee kon ñoom ñu ngi ci taxaw bu soobee yàlla defe naa loolu du nekk li nga xam ne dafa nara a indi problème bu soobee yàlla dinañ ko saafara bu soobee. docteur Mamadou Ndiaye yëkkati kàddu yooyu ci jamono yi ñu doon euh, jël ay euh, vaccin ay dose vaccin yu Portugal jagleel Sénégal moom nag li mu xamle nekk na lu doy waar ndax waa Sénégal ba léegi dañoo yéex ci wàllum ñàkku bi booy xool ba ñu dooree campagne bi ba léegi euh, téeméer boo jël ci askan wi juróom-ñeenti képp ñoom ñoo jël seenub ñaari dose ñi jël benn dose nag téeméer boo jël fukk ak ñeent képp lañu na Mbaare Sow ak Modou Diop. machine yi ngeen di gis yëpp ay appareil la yoo xam ni dañ fiy denc ay vaccin vaccin yooyu nag bokk na ci yi nga xam ni dañ koy ñàkku ngir xeex covid 19 waaye ci réalité bi sénégalais yi ñu ci gën a bëri demaguñu ñu ñàkk leen li ñàkk ni actuellement boo xayma boo seetee euh, téeméeri euh, sénégalais yu nekk euh, fukk ak ñeent yi jot nañ ci première dose te soo seetee pratiquement fukk yi ñoo ci vacciné wu ba mu aw yoon maanaam jël première dose tollanti ko te nit ki nag balaa muy aar boppam vacciné wu tollanti ko kon soo seetee presque téeméer bu nekk fukki nit rek ñoo ciy jot a loolu nag xaw na tuuti dañoo war a yokk suñuy jéego parce que Sénégal dafa bëgg a balaa at bi jeex wala ci njeexteelu at bi ñu téeméer Sénégalais yu nekk juróom fukk ak juróom yi jot ci ñàkku yi. cérémonie bi nga xam ni ministère ministre de la santé moo ko teewee doonoon ab occasion ngir ñu réceptionner dose yi nga xam ni waa Portugal may nañ ko Sénégal directeur de la santé di ci profité ngir ñaax askan wi ñu dem vacciné wu. nit ñi d'abord dañoo bar baralul seeni loxo wala seen tànk jëm ci vaccin yi c'est vrai que vaccin yi tamit taxu koo doy noonu taxu koo doy ci àdduna bi tey taxu koo doy ci Sénégal waaye fi ñu tollu temb vaccin yi doy na ci Sénégal pour l'instant ci ñaari weer yi wala ñetti weer yi di ñëw. am nañu suffisamment de maanaam li ñu am ci ay vaccin doy na kon sénégalais yi mun na ñëw ñakku ñoom nee nañu Sénégal fi mu toll nii am nañu stock vaccin Covid 19 yu mat yoo xam ni mën na vacciner sénégalais yi ci Dakar ak yeneen gox yi octobre ba novembre. ñi yor oto mbalit yi ñoom nag euh, nee nañu boo moyul semaine bi lee dinañ tàmbali ab grève banque seeni yoxoo ndax ñenn ci ñoom euh, toog nañu juróom-ñaar jàpp euh, fukki weer ak ñaar te jotuñu seenub koppax ci UCG kon boo moyul tonni mbalit mi fii ci réew mi nar naa am ay gàllankoor dañ ciy déglu Boubacar Diallo moom mi bokk ci collectif bi ëmb concessionnaire nettoiement yi ci micro Fatou Bintou Conté ak Pape Sangone Mbaye ñun concessionnaire yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum anam mbalit mi wax dëgg yàlla ci yaakaar naa balaa ñoo génn semaine bi dinañ mujj taxawal suñu oto yi parce que dañu amatul kat gasoil buñ ci war a def loolu nag lu ko waral parce que dañu nekk di liggéey ak ICG toog lu toll ni juróom-ñaari weer pour ñenn ñi ñenn ñi sax fukki weer ak benn ñenn ñi at te alors que ICG fayuñu loolu nag mu doon boor bu diis gann gann gann léegi nag ñi ñu doon jàppale vraiment di ñu jox carburant ak yeneen kii dañoo dem ba xamal ne ñoom mënatuñu ak d'ailleurs ñooñu sax arrêté nañ pour le moment nii donc kon ñun mënuñu wax tey la wala suba la parce que xam nañ ne dinañ toogaat waxtaan entre tey ak suba mais njort nañ ne daal semaine bii duñ ci génn te arrêté wuñ suñu ay camion jàng bi tàmbaliwaat na ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ba tax nag ñu doxantu fa tey jile xool ndax dogal yu bees yi ñu jël ci wàllum kaaraange ñu nga ko fay doxal étudiants yi daanaka ku cay dugg da ngay wane sa laata ñu lay bàyyi nga dugg boo réeralee sa carte wala boo ko gisul it dangay joxe sa numéro képp ñu mën koo xool ci xarala yu bees yooyu lee bàyyi la nga dugg ab reportage la bu Fatou Bintou Conté ak Pape Sangone Mbaye ngir dugg nag fi nga xam ne moom moo di université Cheikh Anta Diop de Dakar mu di ci campus social comme pédagogique faaw nag ñu vérifier li nga xam ne moom moo di sa carte mu di contrôle électronique boo xam ne gaaw na te it fiable na ci benn logiciel lan koy defee. dugg see dama fekk agent bi agent bi ma ñëw takk mu laaj ma sama carte étudiant mu demande ma sama ma yor sama carte étudiant parce que sama année en cours sama deuxième semestre laa war a terminer ma ñëw ma jox sama carte étudiant léegi mu mu jël téléphone am mu xool ndax aral na waa wala déet bi mu. xoolee teg ko si puce bi léegi affaire bi sama données yi affiché bi mu affiché léegi si téléphone sama photo sama tur sama numéro carte étudiant wane ni inscrire naa loolu mu wane ni wala léegi man étudiant la même ñi nga xam ne sax yoruñu seen carte étudiant pour dugg université bu ñu joxee seen numéro rek danañu mën a accéder. man dama perdu sama sama carte mais avec système bi gars yi boo joxee sa numéro carte étudiant rek. ñoom bu ñu ko dugalee automatiquement day génne sa photo ñu mën a xam ndax yow la wala du yow mun a xam ndax inscrire nga wala inscrire mun a xam ndax étudiant nga wala nekkuloo étudiant mun a xam ndax carte bi yow yaa ko moom wala moomuloo ko. mu di mesure yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi rafetlu nañ ko dañoo jàpp ni ak filtrage bi université bi dina gën a mën a yokk kaaraangeem. gis naa ne efficace na trop. parce que lii dinañu mën a permettre tey ñi nga xam ne nekkuñu ay di dugg université di fi dëkk di fi def naka sudul noonu ñoom ñëpp ñu téye leen nga xam ne dootuñu mën a téye duggati si université boobu noonu. dina ñu permettre tey si sécurité bi dina dinañu sécuriser ñun étudiants yi dinañ sécuriser tamit suñu ay bagages. système bu bees bi dafay permettre que ñi nga xam ne nekkuñu étudiant dafi doon ñëw di fi def na ko sudul noonu wala ñu nga doon xam ne nekkuñu étudiant dañ doon dugg fii di def commerce wala yeneen ak yeneen wala yenn xeetu yi nga xam ne. bokkowul ak ak étudiants yi quoi. lu ci am ba am daal mooy fi mu toll nii ak mesures yu bees yi nga xam ne autorités universitaires yi ñoom ko jël pour dugg université yombatul. Euh, commission assemblée nationale bi ñu euh, taxawal te mu nar a xool ndax dañuy yëkki euh, mbalaanu kiraay ay député Mamadou bi Biaye ak El Hadj Mamadou Sall dinañ ko taxawal <clears throat> ngeen jéggal ma. dinañ ko taxawal àllarba teg ci ci àjjuma bi la ñu convoqué député yi séance plénière ngir ñu dëggal list bi commission boobule ñaari député yooyu rek bu ngeen di fàttaliku dañ leen tudd ci mbirum trafic passeport diplomatique. ñu jàll ci beneen ponk ak ñaar fukk ak juróom-ñaareelu euh, fespako bi am fële ca Ouagadougou Sénégal nag niñ ko tànnee def ko invité d'honneur nekkul euh, loo xamante ni dañoo xëy rek def ko réalisateur bi di màgget Maguette Diop jàpp ni euh, bokk na ci Sénégal li ñuy joxe ci wàllum production lu am qualité la waaye tamit ñaari réew yi muy Sénégal ak Burkina Faso seenu lëkkaloo dafa yàgg loolu moom mu jàpp ni Sénégal am na chance ndax nag ci lu toll ci 19 production yi muy présenté bokk na ci 14 yi nekk en compétition ñu am ci ay euh, raay moom Maguette Diop foofu ca Ouagadougou euh, ci micro suñu envoyé spéciaux Ibou Diouf ak Yaya Diallo. J'espère que bu amee c'est grâce à nos aînés. i Sembène Ousmane di Ababacar Sambalé Johnson Traoré africaine waaw ci ci ci ay film sénégalais parce que ñun ñoo jëkk def ay film euh, at Niger euh, ñoo fi daan ñoo def semaine euh, semaine une semaine pour def ay film loolu moo suppaliku nekk festival waaw ñun nag ñu ñëwee te ñoom sunuy max lañu ñu continuer loolu di wane seen i œuvre fi seen i liggéey fii wan ko xale yi mu gën leen a jox pas-pas ci liggéey bi loolu aussi gis nañu ne euh, jiwu boo xam ne la euh, xale yu bari dugal na leen si ci cinéma bi tey jii stand bi évolution la parce que presque yéen a occupé espace euh, li ñu wax ci marché bi nga xam ne mooy la def film bi Sénégal la ko occupé malgré que invité la mais ñoo ko occupé waaw par des privés ak par l'officiel sens Sénégal c'est dans la diversité dans le nombre lu ñu gën a am ay film rek ci la ñu gën a am chance waaw parce que film yëpp foog ñu gis ko xool ko taataan leen xool lu baax yeeg lu baaxul mais nag bu fekkee da nga nekk ci euh, foo xam ne dañ fay jogante boo yóbboo candidat yu bari ci ngay gën a amee chance tàggat yaram ak euh, basketball saison 2021 2000 2020 2021 jeex na démb ginnaaw euh, match bi doxoon diggante euh, AS Douanes ak Jeanne ci coupe du Sénégal ba AS Douanes jël raw gàddu gi daanaka fukki weer ak ñaar la saison boobule durée waaye booy xool ci wàllum jàngat li ci neex ñu bëri bëri wut ndax ay joueurs yu ci bëree bëri lu ci mel ni ay 3 points bëri na ci ña koy lajji waaye it ay yeneen jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci basketball bu. Sénégal Cheikh Saad Boudiara lañ ci àndal ak Amadou Ba. AS Douane jël na coupe bu mujj ren ji ci basketball bi fii ci Sénégal loolu ginnaaw fukk ak ñetti weer bi saison bi dooree ba léegi ba tax na seen entraîneur bi di naqarlu guddaayu calendrier bi. Euh, soo commencé entraînement yi depuis septembre de l' année dernière fukki weer ak ñaar ñett ngay xay entraîné joueurs yi dañu sonnoon sur le plan physique ak sur le plan émotionnel. loolu moom moo waral euh, ñu def tamit match bu compliqué compliqué bi bi nga xam ne toog nañ deux mois et demi yoo xam ne amuñu benn compétition officielle. joxoñ nañ itam jafe-jafe yi joueurs yi am ci wàllum trois point points. di woo techniciens yi ñu gën a jàppale xele yi ba ñu mën a marqué trois point di ko assuré su trois points yi bu ñu koy gën di assuré rek surtout bu ñu demee au niveau africain loolu dina nekk atu. buy tax lépp lu ñu amoon ci ndam ci plan africain ñu dellu amat ko ba nga xamante ne bu ñuy jongante moom mbégte rek la ñu yàlla am. saison 2020 2021 bu basketball bi fii ci Sénégal du bokk ci yu ñuy fàttaliku ci lu baax. guddaayu calendrier bi ak équipe nationale yi nërmeelu ci afro basket yi bokk na ci li ko waral. jërëjëf Cheikh Saad Bou Diarra sant ko gërëm ko yéen itam ñi àndoon ak télévision Futur Média di leen bàyyi ngeen wéy ak sunuy programme di leen ñaanal mawlid jàmm mbokk yi ba suba incha allah jërë ngeen jëf